taxawaay yàlla gën leen a dëgëral ndax bés bi fu mu àgg rek yéen ko fa àggule waaye di ndokkeel président bu bees bi di seen xarit di seen soppe muy Diomaye Faye mi nga xam ne dëgg-dëgg am na ci moom yaakaar tey discours am bi ku ko dégg xam na ne ci xol la bàyyeekoo ci waaye ci xol lay jëm ñu koy ñaanal yàlla réussir ndax mooy capitaine gaal bi bu àggee rek ñu àgg bu amee jàmm ñu am jàmm bu amee ndam ñu am ndam ndax ñun amul lu dul Sénégal képp koo xam ne bëgg na réew mi yàlla teg la ci bopp réew mi dina la ñaanal yàlla te dina la gunge te lu la njëkk a gunge mooy ñaan yàlla ndax duaa u silahul mumin ñaan mooy ngandaay jullit te yonent bi sallallahu moo ñu wax ne nen ñaan yàlla ndax ñaan mooy ngàndaay jullit te yàlla tamit moo ñuy wax ci alxuraan uduuni astajib lakum ñaan leen moo ma may leen bon mu ngi koy ñaan ci barke ay yaam yu tedd yi ñu nekk ci barke guddi yu tedd yi ñu nekk ci barke weer yi ñu nekk waaye tamit ci barke guddi gii ñu dëgmal ñu ngi ñaanal président de la république monsieur Diomaye fay yàlla may ko ndam moom a gouvernement di ñaanal Sonko premier ministre ma ñaanal ko réussir ak mboole membre gouvernement bi dina ñaanal yàlla bés bi lépp luñ ciy séntu ci ay nafaxaat yàlla nañ ci yàlla sedd cër bu law ci barke Mawlana Cheikh al Islam Hadji Ibrahima salaamaaleykum